السماء يا يا ربي تعزيم لقوتنا وتتجاوزيا باطني لا ناجد ربي ما بورا تعلمو قلوب ملكك يا باطن يا باطن ملك الماء يا مالك الملك يا باطل يا لا أتيت ربي ما لم تكن تورثه صفوة خلقك يا باطن يا الله أوتني ربي يا رمان رؤيته غير الكرامة نسيئة ما المنافع باطن يرضى ورد قلبي أثرار وتربية من الأباطلية باطن يرضى ورد قلبي وارد واصله إلى الفتوات يا باطن يرضى تطائرا من البطالات يا باطن يا الله ودني ربيبا إلى الدقاتزا من المديلات يا باطن يا الله ودني أدرت الكبرى وتنقياتا من المقيلات يا باطن يا الله جور يلك الوزار وتينا خير الخليقة يا خاتم يلا صل وسلم عليه سرمدنا أبدا ولا لواسابيا باتن يدا تدوجدو آس يا أودو مدابر يا قهار مهتديرا وموسيا وعليا يلا ويلا الخلق بلا باس مصورا واليا يلا ويلا وتمسك الارض وسماء منفردا مماجدا واليا يلا ويلا فاك ملاو مفادلنا واليا يلاو يضاو هلور بيبو بابا نملقو زيادة واليا يلاو يلاو نيدور بيتا ديما لسيزرا من الورى واليا يلاو يضاو خليفة عمه مكرما وعليا يلا ويبا وأولن الكسب من إزاي سبوتنا وديننا واليا يلا ويبا صل وسلم عليه يسر مدنا أبدا ومن بنا واليا يلا ويبا وأولن وتثبياتا وقويني واليا يا لاوي يا وأولني العلم ورسد ومغفرة وأنني واليا يا لاوي يا هو الذي ربي في دنيا ودرتها تولني ربي فيه دنيا ودر ولني ربي في دنيا ودر هي دور تولني ربي في دنيا ودر هي قصا تولني ربي في دنيا ودر هي دور تولني ربي في دنيا ودر هي تولني ربي في دنيا ودر هي دور تولني ربي في دنيا ودر فاروق تولني ربي فيه دنيا ودر سيف سلام تولني ربي فيه دنيا ودر رديا تولني ربي فيه دنيا ودر دينار تولني ربي فيه دنيا ودر رديا ونجلنا واليا يلا ويلا وكل الجبار معتقدا وافنا واليا يا الله يا الله يا متعليا الجنم ونارني توالني حافظا يا الله يا الله يا متعليا القدر وتنهياتي تولني نافعا يا الله الطاقة ونائيات توالني موتيا يلاو يلاو يا متاليا للأخوان والوزارة تولني خيرا يلاو يلاو يا متاليا نقص وتنمية وكل مودزات يلاو يلاو لي عن الدر ومنفعتي سبيل الحمية يلا يلا يا متعليتي لديوان سباي أتني لنا نورنا يلا ويلا يا متعلي فالله سي أي ماسلا أقر لنا مدانا يلا ويلا يا متالي فلا سي أن يعاجزوا سبيلنا قربنا يلا ويلا يا متالي فلا سي أي قاسسا أزهر لنا يا الله صل وسلم عليه يسر مدنا أبدا ولا لوازهبيا قدوس يا الله يا مطالب الله سي أينا يا فاكتب لنا سجدنا يا الله يا الله يا مطالب الله شيئا يقالبه حقيق لنا علمنا يا الله يا الله يا متالي فضلا شيئا يسايم أزم لنا أجمنا يا الله يا الله وسلت يا ربي ثانا وقويبة معامما للورى يا بر يا الله قد جود لأحسيك وزير سعد مواسعا رحمة يا بر يا الله سرت جودك يا رحمن مقتدرا حاجات كل الورى يا بر يا الله يا ربي أرزاق وعدداتا معامما وعيبا يا بري الله أحسن إلا الله في دنيا واجلي مقربا عاربا يا الأمر يا الله أحسن إلى في مفتقر كسيلي منورا لنا يا مرينا تنيل البر يا رحمن منتقلا ومولسا فيلو يا مرينا وأري جامعا للبر جملتي آمدنا المصطفى يا مرينا صل وسلم عليه سر مدنا أبدا معامما جمعوا يا بر يا الله أبوك بركة يا رمان في ولادي معامما صابنا يا بر يا الله توبة تمو جرائمنا يا قبل توبيا تواب يلا أنت الواجرح للتوب وما فرادي فاغفر لنا الذنب يا تواب يلا وتب علينا متى بلا إذا بلاو وواقنا والفتى والمبايا ثواب يلا واتروا يا أسرارا وتنقياتا والكسف والفوز يا ثواب يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كانت حياته ورسالته رحمة للعالمين به سكت أمته بعد أن كان من قبل في دلال مبين وعلى آله وصحابته حق قدره ومقداره العظيم mbokki jullit yi fi daje yéen ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi ci ndigalu alxalifa sayidi muhammadul fadil ibnu mawlaaya cheikh abdusalaami alayhi ridallahi salaam xalifa bi nuyu nañ ñëpp mu ngi siyaare mboolem ñi fi dajee di ci jiital jëmm yu tedd yi mu bokk mawlaaye Cheikh Abdou Salam xalifa bi nuyu na leen teg na bëtam ci yow yëg ne mu ngi xool tey Cheikh Abdou Salam Gueye waaye di nuyu mboolem muqaddam yi fi daje di nuyu soppi yëpp ku ñëw te yàlla tax nga ñëw xalifa bi nuyu na ñëpp di ñaan yàlla na ñu yàlla defal jàmbu ñu commencé ko ci bismillahi waaye yàlla nañ ko mottalee ci alhamdulillahi rabbil alamin nee na itam mu ngi leen di jàlle suñu soppi bi suñu sëriñ bi ki nga xam ne nu ñu mel mooma ki nga xam ne lépp lu ko yàlla sant joxe na ko ba dem wàccoon ak yàlla nee na mu ngi leen di jàlle jëmm jooju yéen ñépp ndax tey la amaat beneen occasion pour dajeeg soppe Cheikh Abdou Salam yi kon nag jaale na leen seen gor gu baax gu tedd googu xam ne jullit bu ne bu dajeeg moromam sañ na ko wax ne ko jaale na la ko ndax si coobare yàlla la ko yàlla tànnee mu nekk pour ñépp ndax kam donn moo tax kam donn yàlla def na ko juróo kenn yow kay rasulullahi nga kon ki ko donn jurul kenn ku baax rek ci njabootam nga bokk kon nag jullit ñépp xalifa bi jaale na leen Cheikh Abdou yi mu ni tamit ñu ngi nekk ci guddi gu màgg màgg màgg guddi goo xam ne seydi alaaji Omar Ndaw mu ne xayrul xayrul xayrul alal itlaaqi ñëpp xam nañ ne guddi gi moo gën ci guddi ndax ki si juddu ba mu juddoo la kawnu bi yëpp leer jamono muuñ ndax yëg na ne ki yow pour ñëpp nga moom la baabil maarifi mawlaay sidi laaj Omar Ndaw ne ko xammat risalatahu horban wa xayruhum naasiqatan li kitaabin hakimin faqimi nee na sa risala bi kooku moom matali na ba ci intellectuel yi nga xam ne sax dañuy seet ci jamono yi nga xam ne ku nekk kan moo ci gën a siiw ñoom ñëpp nangu nañ ne Seydina Muhammad moo nekk o top ndax ñëpp xam na ne moo gën a siiw loolu rek dafay tegtele xamumu bi'satihi bi ko yàlla waaye yàlla yemul ci def seydina muhammad mu nekk rahmatan lil alamin wax ko ci alquran ne ko yónnihuma la nga nekk jëmmi ma pour ñëpp wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin sidi rajo man doon ne ko kon nag wa mursalun rahmatun banat fadailuhu bayna nabiina kan naari ala mu ne ko yow yaay ki ñu yónni waaye dañ la yónni rek nga nekk jëmmi yërmandi waaye gën gi nga gën mboolem di la jiitu loolu mu ngi mel ni rek safara boo xam ne da nga dem ci fi gën kawe nga taxal ko fa nañ koy gisee ngëneel gi yonent bi gën ñépp mu ne noonu la mel kooku la ñàkk ci guddeem màggal ko ko koy def yaa ngi ci biir sunna boroom xam-xam yi yépp nangu nañ ne manul nekk sax bi bidaatu aarifina yi nangu nañ loolu ci ay ay ay hadis yu bari yu ko wéral ay alquran yu ko wéral ndax ñoom ñëpp nangu nañ ne ngëneel mooy rasulullahi te yàlla nee na lépp lu ñuy dajee ci ngëneel googu daje ci ngëneel googu moo gën te jëmmi ngëneel mooy seydina muhammad jibrilu alayhi salaatu wasalaam weeru koor wu jot daf doon wàcc def mudaarasa ak rasulullahi ñu ne lu tax mooy alquranil karim ci weeru koor la wàcci looloo waral weeru koor bu jotee mu ñëw di jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne comme alquran képp moo wàcc ci guddi laylatul qadr yi tax weer yu bu ñëwee jibril di ñëw kon waxuma la ki tax nag alquran ñëw te kooku mooy sallallahu alayhi wa kon bés bi mu dellisee ñu dajee di ko màggal di ko wekk loolu ci alquran la bokk ndax wa tuassiruhu wa tuwaqiruhu kon war nañuy wekk yonent bi màggal ko ñu koy màggalee ci ëtt bu tedd bi xam ne ki gën mat ci waliyu yàlla yi fii la nekkoon di jàmboo xam ne dafa set jàmbu ragal yàlla taqoog yoon wi ko seydina muhammadin rëddal habdun taqiyun waliyullahi muntahijun nahja rasuli fa majda fi diini kooku mooy Cheikh habdun jaam la masul ñàkk a nekk jaam waxtu wu nekk rek muy wone tuuti gi muy tuuti ci kanam yàlla kon nekk na jaam te nekk jaam moo tax yàlla bind ko nangoo nekk jaami yàlla jaamu ko yàlla looloo tax mu bind ñépp moom nangu nay nekk jaam waaye dënnam fees dell ci ragal yàlla ndax leen melo bu ñuy xamee ku ragal yàlla ñun xam nañ ko ci cheikh abdou gi kon nag taqiyu la sidna aliyu karamallahu wajahu dañ ko laaj ne ko lan mooy taqwa mu ne mooy alxawfu biljalili walamalu biltansili wal istidaadu li yowmi rahili Cheikh Alaaji Abdu Salaam ragal na yàlla loolu tax lu yàlla bind ragal na ko te wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almahwa am na ragal yàlla googu lépp lu ko alquran sant jëf na ko lépp lu mu ko tere bàyyi na ko te loolu mooy suufiya Seydi Ahmada Tijaani biñ ko laajee tasawuf mu ne imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi jeex na Cheikh Alaaji Abdusalaam taxaw na foofu waaye nag istidaad li yawmi rahil xamoon na ne bés dana jot mu fekk ñëpp mu war ko nag jàmm lañu la ci ëttam mu gën a màgg ci ci waliyu bokk ci waliyu gën a ragal yàlla topp boromam kon bu ñëwee fii di ko màggal yiw rek lañ fi yaakaar yàlla ñu ko yàlla defal dënn yu fees dell ci bëgg yàlla lañ fi yaakaar yàlla ñu ko yàlla defal te moom lépp luñ yaakaar ci kawam rek maqaamam mi attan na lu paase loolu ndax nee na moom ci cet maqaama la toog te boo toogee ci cet maqaama dara yeesatul la kon nag yi baax yëpp yal na ko yàlla defal mbooloo xam mi ndax Seydi Alaaji Wanda moo ko waxoon ne ko sa mbooloo mi dafa weex pour jamaatan safwatan loolu la Cheikh Alaaji Abdou Salaam am kon yéen soppeem yi da ngeen leer kuñ gis sa jëmmu yëg ne kii taalibi Mawlaay Cheikh Abdou Salaam Gueye la loolu rek la xalifa bi waxoon ne nañ leen jaaleel góoram googu jaaleel li ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla ñu commencé ci bismillahi mottali ko ci alhamdulillah loolu la waxoon mu ne gërëm na ñëpp sant na ñëpp taxawaayu taalibi yëpp gërëm na ko lépp luñ fi andi gis na ko kenn rekk a mën a fay mooy yàlla yàlla yàlla fay leen Cheikh Rajo Salaam mu ne lu la yàlla defal nga ne ko yàlla yàlla fay la dese lawtoo ko dara ndax yow mënoo fay suma ma bàyyi sëñ Aliou Thioye mu ne ma wala hawla wala quwwata jeexal na lépp koo ko wax rek yow génne nga pexe ndax amoo ko xaarifiina yi nee na innama alxiilatu fi tarkil xiil pexe dëgg rek mooy bàyyi pexe boo bàyyi pexe mu ne rek pexe jaam ndax yàlla rek a am pexe innama alxiilatu fi tarkil xiil kon nag xalifa bi nee na gërëm na sant na waaye nag gërëm na rakkam yi bu baax a baax a baax a baax ngeen ñaanal ko yàlla li bàyyam jëmbët yàlla bu mu yàqu te du yàqu ndax moom am na garante suñu bàyyi Serigne Cheikh Tidiane si nee na wali yàlla fekk parewul wóolu kanamam wóolu gannaawam du dem te moom àgg na foofu woolu na kanamam woolu na gannaawam ndax ay kummalu jàll la fi bàyyi yàlla ngeen yàgg lool li mu dund ngeen dund lu ko ëpp yàlla mën na ko yal na ko yàlla def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi تواف وسلم أنزلنا ربي سيباوك أخوان إدريس سيور للنوح خل مرسلهم ونجله الجد إسماعيل سيد أمين موسى كليم وداود خليفته ثم سليم تسليتي محمدا صفوة الأملاك والنسب محمد صفوة الأملاك والنسب كن بوصل المجيد بتسليم بلا عدد صلى المجيد بتسليم بلا عدد عليه والآله والأسواق والبر وهتز أرس المليك حق ساترة وقت سقوط ديائه لو غيب الأمر يا مميت يقع أدعوك بالشمس يا رحمن باسقاتا وبالكواكب يا رحيم يا دبر الأمر وأرواح جملة ورزق والأنبياء مميت يبا توك بي سمسيا رمان باسقاتا وبالكواكب ريم يلا أتوك بي سمسيا رحمن باسقاتا وبالكواكب ريم يلا أتوك بسمسيا أمان باسقة بالله الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون ولا حول ولا قوة إلا بالله الحلي العظيم الحمد لله رب العالمين arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin alhamdulillahi allasi wasiha kulla sayin rahmatan wa helman alhamdulillahi allasi halal harsi istawa qul huwa arrahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna arrahmanu fas'al bihi qabiran arrahmanu allama alquran xalaqa linsaana allamahu lbayaan wa usalli wa usallimu wa ubaariku ala sayidi alkarim والسند الحسيم منبح النور والأنوار محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه wa aswaajihi wa ahbaabihi wa man ihtadaa bi hadihi wattabaha sunnatahu ila yawmi ddin wa ashadu an la ilaha illa allah waliyu saalihin fa nihima almawla wa nihima alnasir wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa qaliluhu arsalahu rahmatan lil alamin amma bahdu maasirul muminin fi hadrati ahli alhaqi walwafa wa hadrati ahli sidqi wa safa sayyidina wa sanadina wa maljaina wa murabbina ila alhabibil amin Cheikh Seydi Alhaaji Abdou Salaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw buñ sante yàlla ba julli si yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla mi nga xam ne mooy borom yërma mooy yërma yërëm jaamam bi yëpp bëri yërmande moo tax ñu tudd fi rahmatu yi fi tudd bëri yërmaande gu yàlla bëri yërmaande si jaamam yi moo tax mooy windi fi turi rahmatu yi gannaaw bu sante yàlla mu xam ne moo xam yërmaande si jaamam yi nag julli si yonent bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam yéen mbokki jullit fi teew mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoor yi ñu ngi leen ay nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di la di la baloo xàq di la baal xàq di ñaan yàlla ki amee njégal yàlla boole jég yàlla ñu yàlla boole jéggal yàlla ki amee ndimbal yàlla ñu yàlla boole dimbale yàlla mi amee sutura yàlla ñu yàlla boole suturaal mbokki jullit yooyu ci ban dëkk lañ nekk ci ban réew lañ nekk ñu ngi nekk ci xadratu ahlil xaqi hmm? xadratu ahlil xaqi wal wafaayi ki nga xam ne dëgg rek la tegoon tànkam yi matal koo kóolóore yi mu faslante woon ak boromam yépp ba yàlla xamalee ruux yi laaj leen ne ndax ëllëg su ma yónnee mu ki tax ma bind leen di ngeen nangu yéen topp si kawam ñëpp waxoon balee moom bokkoon na si ñu matal kóolóore googu matalul ko kon bokk si ne laq waxoon na dëgg la waxoon du dëgg matalul barab bi kooku si ngeen toog wa hadratu ahli sidqi wa safaay barabab ki nga xam ne ku dëggu la ku jàmbaar la si diinal islaam ku mën a leeral diinal islaam la wa safaay te sell nag dañ koy leeral dafa sell du ko leeral si wàllu benn wàllu gu ñagas ah, moom lu mu doon waxee di nit ñi rek la yonenti yàlla la yàlla digaloon yonenti yàlla Moussa ndax Moussa dafa xiiroon la fa xawlan la qawlan layyinan yow Moussa ak Haaruna su ngeen demee sa kàccoor boobu it nag li mooy nekk ne kàccoor nag na ngeen wax ak moom wax ju nooy borom xadra bii nag bokkoon na si ñi nga xam ne wasafaa yi dafa selloon ni mooy waxee ak jaami yàlla yi dafa selloon ni mooy jaamoo ak boromam ah si barab boobu seen toog yàlla nañu yàlla xéewal si martaba boobu nag dama wax démb ba tey ne ñaari yëf moo am soo bëggee nit ki gërëm la danga koy defal lim bëgg mu man laay gërëm ku fu la neex ci àdduna bi mën nga faa toog màggal sayyidul wujuud sallallahu alayhi wa sallam tànk nangu nga wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaye dafa am nit koo xam ne dafa jaayanteeg yàlla jaayanteeg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gërëm bañ gërëm ko ñoom ñaar ñooñu ah comme nag ñun dañ bëri bàkkaar tilim moo tax ñu ne nañ dajee si barabu tedd bu sell boobu di barabam Cheikh Seydi Alaaji Abdou Salaam màggale fi Seydil Wujuud sallallahu alayhi wa kon nag gannaaw naaw Seydi Alaaji Abdou Salaam mooy bunt bi te lu mu bëggoon mooy dëgg lu mu bëggoon mooy lu rafet lu mu bëggoon mooy jàmm lu mu mooy njub lu mu bëggoon mooy dëppoo ku ko bëgg a nag da nga kaay defee noonu kon ni nga am gërëmam ak foo mën a ne ak loo mën a ne ak foo mën a ne ak loo loo mën a xamee di nga am gërëmam suñ defee loolu ba moom barab borom barab bii gërëm li ñooy def yàlla yokk leeram fa mu tëdd sa barsax mu gestu moo tax ñu koy tuddooyee rabbi hon rahmaan weeru yërmaande rek la ndax yooyu yëpp yërmaande jaam yàlla yi rabbi hon rahmaan doo wax bu rab rabbi hon la woon rabbi hon rahmaan hmm? ma min mawludin wulida ala wajhil illa muhammadun afdalu minhu xamul benn jaami yàlla boo xam ne di nga juddu si kow suuf si ndara sayyidu wujud sallallahu alayhi wa sallam moo gën ndax moo tax ñu bind la loolu kenn weranteew hmm? yàlla rek si yërmaa nañu mat ji rek ni ñuy baaxee jox ñu dugal ñu si xeeti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maqaama moom nga xam ne moom sayyidu wujud alayhi wa sallam xamoon xam na wa qabla wilaadatihi dafaha llaahu jalla jalaaluhu assuruur an makkata wal axtaari an ahli makka njëkk mooy judduwaat sax njëkk muy judduwaat yàlla jañ na si ahlu makka fitna yay nekkoon sa kàccoor boobu ñëwoon bugg a yàq kaaba ga bugg a yàq darajaay sangi màkkatal mukarram yi waaye gis nga ni yàlla xereñee gis ngeen ni yàlla xereñee loolu daf ko def njëkk Seydou Wudjo di judduwaat ñaari weer wala juróom-benn weer si ñenn borom xam yi lu tax dafa wax ne wa maa kaana allaahu li yu'azzibahum wa anta fiihim wa maa kaana allaahu muhassibahum wa hum yastaghfiruuna su toogoon ba seyri wujur juddu du xa du xalagee abrahaata ni ko ni ko xalagee dégg leeral seyri wujur gi si kaw suuf dina a xalagee ñu abrahaata bi yàlla na ma toroxal mu def ay pexe yëpp ne na dem màgg kaaba ga njëkk juddu seydi wujur ndax xamutoon sax ne seydi wujur nga ñëw teraanga ji sanni mu kër yi am di xiit xuraysin moom la leen xañaanee xoon na def pexe pour màgg ko màbb ko moo tax seydi wujur waxoon ne alhasudu xaala saadiqul musduq alxasuudu laa yasuudu alxasuudu laa yasuudu ku xañaan doo nekk sang mukk mukk mukk mukk nag alxasuudu laa yasuudu abraha na kaaba ga doon doxee dara da xadiw ko si lu mooy kañaan soo nekkee jullit sax xañaan sa yëddu wu joor mu ne sa liggéey bi dafaa yàqu alxasadu taakulu naar kama taakulul naara alxatab xañaan dafay lekk jëf ju baax ñu defoon comme ni safara da lekkee matt noonu la xañaan di lekkee jëf ju baax joo defoon abraha nag xañaanee màkka daraja ji leen yàlla jox baat bi ko yàlla jox ñu ne kon nañ dem màgg bu kaaba ga njëkk juddoog sayyidul wujuud sallallahu alayhi wa sallam yàlla bañ xalak abrahata faqad asaara abrahata bi jaysin jarraarin li yuhdimal kahawata almusarrafa wa li yaqtula saarata makkata fa bahasa allahu tayran ababila bahasa min bahri xalsuum tarmi abrahata wa asaabuhu yàlla nag abrahata jóg xànd ak mu bari ak ngànnaay yu mat sëkk ne mu ngay dem màbb kaaba ga ba mu demee ba jëpp kaaba ga yónni ñenn si nitam yi ñen dañ dem jël màkkatal mu karam seen xalal yi ndax ku fekkee nit si sa dëkk jël xalalam yombut ak génn pour defante yow suñ génne ñu rey benn yoon bañ demee jël xalali màkkata yi seen gàtt yi sangi Quraysh ni jóg ne neen dem jëli suñu xalal yi bañ demee ne ñu ngay jël seen xalal yi ñëw si abrahata ne ko suñu gaal xalal yi nga xam ne moom nga téye moom lañ bëgg nga jox ñu mu ne loolu rek ngeen fee wut si ñu ne waaw mu ne toskare ne yàlla ne yéen man ma ñëw ak mbooloo mi ma ànd xam ngeen ne xalal tax maliki yawmi أجمعين اهدنا الصراط المستقيم وليبتلي الله بسم الله الرحمن assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waxaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaye nee na alhamdulillahi rabbil alamin ana allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ngi tegaat na ci kaw na yoo bi nga xam ne moo ko santoon seen caat Ahmadul Muxtaar mu hubbi leen ko ci jotaay bii mu war a toog li tax mu jox ko Ahmadul Muxtaar ñoo bokk li ñu wax ne moom moo fi wuutu Sëriñ Abdou Salaam ci kóllëre gu mat kóllëre goo xam ne teg na ko ci ci loxoom ndax bés bi muy judd fi ñu waxee baayam ne ko nee na soxna asuma asu doom dafa fekk mu romb baayam di siikar بيت الجواقد نوى خيرهم أحمد المختار أصلهم قدمتهم مشيا يا الله يا الله نينا واجو تدجا mu ne kon sëriñ bi ne kon ki ma wax ne moo juddu Ahmadul Muxtaar ngoog nee na kooku muy sëñ Abdou Salaam moo ñàkk kañaan jur doom doom ju nexu dara romb la wax baat nga wéyale baat ba mu wax nee na waajaangu dafa waxoon ne ba si tey bii moo nekk juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa waaye moo tombeek seex seydi alaaji abdusalaam dem bar sax mu waxoon ne ba si tey bii waxi Abdou Salam rek la bëgg ñu wax tënkut kenn nag dafa ne kenn ku ne xam na loo xam ci sëriñ Abdou Salam ne moo dëppoog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxu ne moo yonent de ndax réerut nee na baayam du yonent ndax réerut waaye jikko ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee jikko jooju la sëriñ Abdou Salam amee su fekkoon fa tombeeg yonent bi nee na billahi lazi laa ilaha illa allah moo ne konoon fekkoon yàlla def ko yónni muy yónnent yàlla def ko muy xatmul mursalin konoon sëñ Abdou Salaam leen yónni nee na kon nag bési tey bi bés la boo xam ne bu neex la waaye bu jafe la ndax toomaam sëñ Fallou Touré daf fi mos ñëw ñuy rëddi jumaa ji ñiy wax ñëpp ñu lim ñiy wax ñu ne di wax di waay wax mu ne déet man maay mujj a wax gannaaw sëriñ bi sëriñ bi rekk laay njëkk a wax bi ñàkk say ci moom mu ne dof kenn du ko wax yaa moom xew li mbooloo mu xem ni boo ne dof bi yaa xew li dof bi daa jël weñ bu diis takk ci ci buum bu xoyof buy dog gëmmu tey windeel kum dajal nga am problème loolu leen def tey bàyyi faalu sëriñ Abdou Salaam dofi sëriñ Abdou Salaam bi jaamu sëriñ Abdou Salaam bi leen wax ne yaay wuutu sëriñ Abdou Salaam waaye xam ngeen ne kuy yàlla bind ku mën a wuutu sëriñ Abdou Salaam amul kon naka la koy wuutoo waaye doomam la nag mënut koy bañ waaye sëriñ Abdou Salaam Gueye suñ seetee taarixam yépp benn doomu aadama boo xam ne maam xam nga taarix bu mel noonu déedéet amul dem di nuyu sëriñ romb ko dem doxi sa soxla toog ak moom sëriñ bi na la su la fii doyee ma may la tarixa ndax ñii ñaan wérde ci sëriñ bi noonu la sëriñ di mayee taalibe murid xam ngeen ne kenn xamul loolu mu may ko tarixa tijaan bi keroog ba mu ko ko mayee keroog la tàqale ko moom ñuy dem ba benn bés mu dem di sanc juma ñu ànd ak moom di siikar bu fekkee xutbul awliya Seydi Alaaji Omar radiyallahu anhu mu toog toogaayam bu jekk ba jël loxo ndeyjoor bi teg ko ci loxo càmmoñam sëñ Abdou Salaam yegg si mu di ko xool rek ba mu yàgg mu ne ko sëñ Abdou yow de sa nit ñi fa yàq pour si biir nit ñi te boobu ay taalibe am ay doomam am ay jarbaat ndax ñooñu di huñ nit mu ne tekk mu ne ko nit liñ bari bari niñ mel man Omar noonu laa ànd ñoom waaye yow sëñ Abdou ni ma mel noonu nga ànd man ndax taalibe sëriñ wax loolu yomb na lillahi darruka ya Abdou Salaam illashi ساءت ولايته بين الخليفات خليفة بسباي لله درك يا عبد السلام الذي ساءت ولايته بين الخليفات kooku mooy samsul maarifi nooru diini mafsawana sa baay xawsul bariyati saayibul karaamaati sa baay mooy sirrul haqiiqati mooy misbaahu junnaati sa baay mooy sadru sariyaati kooku man baal fuyudaati kon boog akrim bi sayxin karimin saahidin warihan sayqul masaayiqi mursidul bariyaati kooku habdun taqiyun safiyu laayi hamdatuna sa baay bahrul makarimi kooku mooy man bool fuyudaati sa baay habdun taqiyun safiyu laayi umdatuna umdatuna بهر المكارم أنبع الفيودات كن بوك إني ببابكم يا كارس مي في يوم مسلم يا سيدي كأس العنايات أكرم بسيف رشيد taahirin alamin sa baay mooy kansul fadaili mahdinul kamalaati kon bul gëstu mbaa nga suuf ku ni ndax maqaamuhu qad ala fawqa samawaati bul gëstu mbaa too gis suuf ku ni mel qad ala fawqa samawaati kon nag jàppoo te déggoo bennoo rekk mooy li fi des buñ may si ñun ku fi xam say an bi aafaati jàppoo te déggoo sang bi bennoo rekk mooy li fi des bu may si yéen ku fi am say an bi afaati looy sàkk lu mën doon see xabdu mooy ki ko yor te jox na leen may na leen kullal maqaamaati looy sàkku lum mën doon sa baay mooy ki ko yor te jox na leen may na leen kullal maqaamaati kooku xutbul wujuudi wa baabullahi maljauna baabu saadati nibraasul wilaayaati doot dañ ko woy mu koy woyaat moo ko woyal boppam nee na tey am na bés yoo xam ne tàng na lool waaye sang bi de lum tàng-tàng sedd rek gannaawam lum tàng-tàng sedd rek li ko leer def ne woon bala ñuy commencé jàng yi dafay wax ñetti baat defu loolu dina ko wax képp koo xam ne da nga barab ñëw file ne da ngay seet yow moomu ñeewu ma la dafa a nekk fii liggéey sang bi ci wanagam bi sang bi di julli ji subaar ne ko waxtu wi jot nee ndof gi mu wax ci moom mu ne ko kuy liggéey yàlla waxtu doo waxtu loolu la baayam sëñ bi ko wéy Moodu Fadil Gueye Baay Faal bi yaa ko wefe Dakar mosoo lu dul ndigalal Baay Mansoor moodu Fadilu Gueye Baay Faal bi yaa ko wefe dëkkaam mosoo jëfee lu dul déggalal Baay Mansoor nee na mu ne baayam kuy liggéeyal waxtu doo seet waxtu sëñ bi romb ko wéy bi ba xàggal mu del saat ci néegam takkusaan jot mu romb ko ko dara waaye jamaano booba tàng na de xurumam bii dafa waxoon daf ko bëgg a liggéeyee findifeer te booba jamaano sëriñ bi ci boppam findifeer yombut moom mu bëgg loolu dem pasi samedi gis benn doomi baayam mu xame bitik mu ne ko man de damay liggéey sama baay bugg nag duma ko def xànc waaye duma ko laaj jàmbur doom laa koy laaj ndax ki mu doon waxat doomi baay maam baabu jëbu la mu yëkkati benn kilo jox mu ne dootuma ko laaj téeméeri xet ak juróom ñetti fukki xet ak ñeent la gor indi fii diisowut ak kenn xanut ak kenn sëñ Abdu la jiital takk fasam muy dox mu topp kawam teg sémmiñam am na benn bés bant bii ngeen di romb ci buntu kër gi daf ko yëkkati xam lu ko fettaxal mu dal ci kawam mu daanu yëgatul dara ti moo fa nekk yàlla fas wi saret bi si barkeem bi moo ko yëkkati foofu waaye bi mu ronowaatee bant bi bant bi mu ne yekket mu teg ko teg ko ci saret bi lu ko neexee indi ko bi mu koy wàccee mu ne sëriñ bi ne ko lii du liggéeyi kenn mu ne ko saggaage bokkar laa déggoon nga ne xamoo ndax xeeyoo ngaay liggéeyil moo tax doo sant kenn dara man nag sama baay laay di liggéeyal sama sang di liggéeyal sama sëriñ maay xool maa bañ su fekkoon xamoon na ne sëñ Abdou Salaam lii la koy fayee konoon dana dolli li muy liggéey di liggéey bañ njëkk koy defar bi ci tegu bi ñuy rëdd néegam bi bañ na ba sonn wax ji li muy jëriñ nag mooy liggéeyal sa kilifa li jëriñ mu ne Seydina Ousmane koo xam ne yaa ngi koy liggéeyal néeg di néeg bi nga koy liggéeyal du ko gis jarut néeg ba jarut liggéey ñetti yoon la ko wax sa Ousmane waaye fekk xaalis bi ñu koy liggéeyee teg nañ ko ci loxo Ousmane baayam xamul ci dara mu sëñ Ousmane te rek keroog bañ koy rëdd Ousmane mi ñëw ba nekk sëñ sëriñ bi mu ne ko juróom benn fu at ak ñett walla ñeent boroom néew na doole mu ne ko liggéeyi sëñ Abdou Salaam ku ma ci toppandoor doo ko nettali dee bi njëkk nee na Basiru mi jël naa peelam mu dem jëndi ñetti peel indi ko ne bii nag ku ma xaw su soxlaa nga joxaat ma nag del si ca dee ba bi néeg bee pare li gën a xees mooy mu xëy liggéeyuñ dara ci néeg bi mu ñëw taxaw ci néeg bi ñu teg juróom benn junne ci loxoom ba néeg bi pare daaw ci heure bii bi gàmmu ngay jotat mu ne lu wër mbaar mi dinaa ko peinture mu weex mu ngi yoon xaalis ya nattu dal ba mënu koy liggéey ren dafa wax Ousmane ñaanu ma ndimbal du ma diisoo kenn bàyyi leen ma ma def su ma tëlee rus bi mu koy wax loolu téeméer moo nekk ci poosam mu fas yéene liggéeyal sëriñ Abdou Salaam ndax doomu aadama yi ñoo ne sëñ Abdou Salaam demut sëñ Abdou Salaam demut nag kon faalu lu wax ci liggéey nee na moo bañ ndax nawlem ba xaritam ba soppem ba Habibou Touré barki démb dafa dem mu nekku soo bàyyi moo ma wax ne neen dem daaru ridwaan liggéey te wàcceegun ma kon man damay liggéey rek fa ko wala moo wàccee ma nee na moom itam nag bu ko kenn digal bu ko kenn ñaan neen ko bàyyi donte moxtaar la mooy tabaxlu lu nekk mu dem di liggéey neen ko baax liggéeyalul kenn liggéeyalul kenn Serigne Abdou Salam lay liggéeyal fii la taxawoon ci mbaari ga tax ne su fekkee yàlla xam na lu muy joxe te jaarut si Omar Ndaw na jël bëgguma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee xam na lu maye ci si Omar na jël bëgguma Seexul Tijaani Sharif radiyallahu anhu su fekkee xam na lu joxe te jaarut si Omar na jël bëgguma te billaahi lesi laa ilaha illa huwa xomar gënu seen abdusalaam dafa doon war sagam rek mu njëkk koy juddu njëkk koy xamee tariqa tijaan yàlla njëkk koy war sagal war sagal ko sëriñ abdusalaam moo tax moom mu am sëriñ abdusalaam muy baayam mu fas yéene tarbiye galan soo moytuwul lim mën a nag kër gi képp koo xam ne yaa ngi yaakaar fàllu di wax Basiiru dara fàllu dana la dóor te Abdou Salaam si yow dara keneen mënu si yow dara xam leen ne kër gi borom pare na topp yàlla mi boromam la rawee si mas moromam royonen ba am ngërëmam Abdu Baay Seex Omaro moo di Bambulaan sëmbu leen yéen ñi sopp Seex yëngu leen suñ màndee ci moom dootu leen mar bañi dajeek Omaro <laughs> nee na kon nag nee na mu ngi dénk taalibe yi di dénk dëkkandoor yëpp ñu moytu nee kër gi dafay wax ne sëriñ Abdou Salaam kuy wax ne liggéeyam yàlla bu mu yàqu ci xelam mu gàtt dafay wax ne dof nga moom li muy wax mooy liggéey sëriñ Abdou Salaam yéen leen si jëriñu waaye liggéey sëriñ Abdou Salaam dara koo yàq baayam gërëm ko yaayam gërëm ko sëriñam gërëm ko seexu tijaan gërëm ko yonent bi gërëm ko yàlla gërëm ko kooku liggéeyam nu muy yàqoo yaram mu sedd amul nee na neen góorgóorlu la sëriñ bi doon wax nag nee na moom koy wax lam xamoon xamul ko waaye jur na ko ci farata ak sunna yar ci leer xamal na ko téereb yàlla bi kon lu des jëfandikoo ku dog yàpp wu duuf togg bam ñor mu neex lool nga wut bool bool bu set wecc def ko ca ne kaay lekk waaye sëñ bi soo amee xel ñëwal lekk rek ba suur te nga jóg wax borom jërëjëf keneen ñëw lekk sëriñ Abdou Salaam daal daa iman daa iman ñun ñëpp fuñ toll lu ñu war a wax mooy jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ Abdou Salaam jërëjëf sëriñ Abdou Salaam nee na suñu bi ñoom ñaar ñoo doon tëdd ci leeso gur ñi xam loolu ci mbooloo mi bariwuñ néeg ba paasewul ñeenti mètre lal baa fa ne leeso ba ti dajut su ko njëkk a tëdd tëdd ci buntu lal bi buntu lal sëriñ bi mu tëdd ci gannaaw nee na sëñ Basiir buñ koy xee ci rondal ga laay dugg moom bu fekkee moo féetoo ci rondal buñ ko yee fekk ko ci pegg tabax kon ànd boobu wóoru tabax nee na yànd bi yal na sax yànd boobu dara mënul ko yàq nee na ñoom ñaar ñoo ko mën a yàq te li ko leer kenn ku ko yàq si ñoom léegi nga fekk sa baay si ñàkk kañaan monte ñàkk a tudd nag Ousmane Gueye ne na ko keroog bi fii jógee ak bi ñuy ñëw xamul benn bés boo xam ne sëriñ bi tere na moo ko wax ne sëriñ bi jàjj na leen ñoom ña li ñuy jàjjee nag ñoom ñoo ko xam waaye gënuñ ko koy xam moom ndax bi fi fiy jógee ñoom ñaar ba dugg ci oto bi bi muy ñëw ñun ñaar ba bakkanam jeex wax na ko de nee na waaye dafa am nag bras droit yu nekk ci digganteem ak sëriñ ci jamono boobu tey nag kenn neexatut ci digganteem ak sëriñ moom ak yàlla rek wax na ko ci zahir wax na ko ci baatin lim ko wax nag dee rek moo koy tàqaleeg moom wax na leen ci jumaa ji ku bañ a roy kenn du la roy alaaji Omar Ndaw jur ay doom sëñ Abdou Salaam di taalibeem boo xam ne kenn jiitu ko doom mu fàtte lam doon wax laaj ko ko moom doom ja xam fit ne doon na def nangam doon na def nangam doon na def nangam waaye lii la mujjee ñun nag ñu gàtt xel li Abdou Salaam doon def sa njëlbeen ñu fekkee lam doon def ci ñaareel bi ñu fekkee ñetteel bi ñu fekkee ñeenteel bi ñu fekkee aaxir bi ñu fekkee liñ fekkee neen fekkee neen def lim fekkee xoona ko ay yoon su waxtu jotee noddal loolu la ko sédd moom waaye séddul ko imaam waaye tey nag su ko neexee mooy imam waaye imam bi le doy na ko zahira wa baatina ku dul moom nag su ko neexee kenn dootu doon imam moom mooy imam mooy naibam mooy nekk ñetteel naib mooy nekk ñeenteel bi nee na billaahi jur mu jiite la neexut ko neexut ko tey neexut ko suba ti ko neex mukk fu ngeen ko gisee rek xam na lu tax ti moom wartu da xaare wartu da topp toppee jeex na waaye mun na xaare ndax xormaay alaaji abdou salaam ñoo ko gënal kulul ñoom waaye kenn ku ne su àndeeg yow doonte sa ndey sa baay la teggin ñi mu koy jox yow noo koo jox lu ko wees te loolu yëpp sëriñ abdou salaam la kon neen góorgóorlu nee na ñëpp noppi ci lu ñu xamul li ñu xam li na tuuti te njaamu ji yàlla yaa gore am yërmande am diine cofan ko Cheikh Abdou Salam ngay wax ji du kas boote salaam wax lu baax dama xam ci sa xarit beete kooka di alaaji sëriñ Fallu ga yaa yaatu yaa gore am yërmande am diine ca fonk maam Abdou Salam wax ji du kas boote yaa fonk maam Abdou Salam ak doomam baaxi mu am dongaa mi fonk la tey rek nga yokkooti sëñ Fallu say rek say xarit ak mbokk yi maa sana mbég mais Mokhtar jaatit xarabul jaajëf sa jëf say wallare tay xarit ak ca donga yeet xarabul jaajëf sa jëf jeeti am naa lu ma saf gis naa lu ma saf ku sopp naa ci say baaraam am naa lu ma saf gis naa lu ma mos naa ci yow lu ma saf ngam naa la dootuma ba yaa na bu lépp lu ñaaw te feeñat lu yaa boole ñëpp defar ngeen ñëpp kenn du la ba sëñ Fallu yàlla ngi lay gërëm ak maam Abdou ku sopp maam Abdou ku sopp maam Abdou ak maam Abdou Salam li nga jëf ci jaamu yàlla yi fekke nga fekk musiba ma jëm fi jooy kafa bon léppam ni yàlla fabal nooroon ci lu yokkab sam diina jub-jubale kookaa di maam Abdou Salaam demam gii diis na gan li ci ñun te diis ci lislaam ji diis yoon wi li lay rëtale foo muti toll foofee dem nga na foofa ci ñun ca yàlla ca yàlla maam Abdou Salaam dem na rekk le yàlla mi ngeen am sa baay bu baax yàlla na ko may ay këri kër ko sopp maam Abdou Salam defal nii say duniyaa mu doon këroog sa xoot yaale waa Màkka duñ ko jaale sa gindi gaala laay dale sa baay ba jëf nga àggale u ko lii nga tàmbale sëñ Fallu yàlla na nga ca lu kawe sigil di gaale day dale maam Abdou jëf nga gale nga aw ko mbii nga tàmbali yal na ci ndam lu kawe am kilifa la dàqaloon tey waaye dogal na ngoo ca mbir mi yaa ko leb lewoon mbindeef yi war na laa njukkal la nga lewoon ñu fay la ko ca jëf ji set ñu segg ko sellal ko lool te yëpp ko di góor yi nangu am dogal sama ay bu baax bam na ne tey la nit ñi xam ni yaa ñemee ñëpp a gëlëm ba la demee yaa jóg taxaw ni toog warul samay xef gaja naa tooy ci rangoo ñu jooy ku dem bisum tey dinaa yëkkat bala mawti mbër la jam ayaa xaaminul arwaa yi teewoon nga tàggonoo nu jébbal la junniiru jamaam abdou salaam ñaaka dem moo yow mawtu looy diiroo ka jëkkante xamul balaa sun jàmbaar ja lislaam ja di ab cëram yitteeg pas-pas ak lay jooy maam Abdou Jom ak ful la ñàkk nan tabeek farlu yaatoog muñ ku ney fomp say rangooñ doxin wee waral mission commando bi teel a mat da ngaa dem kappo demal dal di tekki dem way naka laale puluxil ay saarani maanaam jëmm ji day day sama xarit day saan dama bëgg na présenté ma ne ko du ma fi gan maa ngi lay ñaanal baax daa baax ci man man Touba da dëkk daan am ay programme waaye tey dama ne du ma dem fenn ci jàkkaarloo ma ak sa jëmm ji mu baax lool ci man barke sëñ Touba tiraangaa ko pooto yam boo ci bëggee jëriñu dong koy weer jëf ju baax ji ngay jëf ak nga sagale tàggkat yonante yi barke sëñ Touba maa ngi lay ñaanal baax yàlla na ko yàgg suñu kanam kenn gënu la dama damaa na présenté waaye gan la ñuy présenté ma fi gan damaa ñëw sama kër maam jërëjëf. mu ngi ñaan yàlla képp koo xam ne dox baat si fii xamuñ loo yéene nag waaye yàlla bul xam lu bon ku amul lu bon nag dana nga ba sa kër. xam na loo xam ne nag góor gi daan ko wax léegi la koy wax mbaar mi ni mel bugg na mu xàgg sa jumaa miir bii su ñuy defee moom dana ko def bu nit ñi defut dina ko defar balaay ci chéir bi dana ko dóor ba mu mokk mu girig mbaar mi continuer laajut kenn dara nag waaye ku nga def ci yéen a wax ne sëriñ Abdou Salaam demut kuy liggéeyal ko demut nag mbaam nga ay lim fas yéene daal lu mu tàmbali rek ñu mottali lu mu tàmbaleegut ñu tàmbali matal ko am na benn xabru bu nekk fële mbal boobu gànjaay sëriñ Abdou Salaam dafa dégg sëriñam mu ne siyaare ci xabru boobu jar na hut dalli weñ di ko doxe ba dalli weñee jeex ca ga nga matam nga muy dox ba dem ci xabru ba moom sëriñ Abdou Salaam timis la fa àgg julli timis wax imaam bi nag ko xabru bëri dey dama gis yoon waa ci kawam ma bëggu nag ñu toppale salaan yi toxal yoon bi mu ne ko léegi leen koy def mu ne ko lëndëm na de ti wóorul neen bàyyi ba suba ñu def ko sëriñ bi tabaxlu xabru ba ñam ko joxoon ñuy tabax joxe neen xaalis waaye ñi tabax ne terrasse dañ koy def ba mu àggee xam na ne tabax bi man terrasse mu yokk ko moom xëddu ko la ko yéem mooy li wër néeg ba yëpp mu nga sax ñax li tiim xabru bi dara newu ci mu laajte ndax dañ ko bay ña fa ne ne ko keroog bañ juddoo ak bésu tey bii mosuñu gis xabru bi sax ñax mu mottali ko seng ko si benn bés xabru baay bi nag nit a financé ci tàmbali bi ba ca mujj ñu karo fas na yéene itam boole ko ci liggéeyam dem karo ko raax ko pentir ko nekk mottali lépp rek nag mottali liggéey sëriñ Abdou Salaam la neen ko ba rek mu nekk jaamu sëriñ Abdou tur wii nag mënul koy bañ mu alxalifa bi mu koy bañ waaye moom xam na lim dox moom daal Baay Faal la jaam la képp koo xam ne sëñ Abdou Salaam na la gëmal ne sa jaam la soo gëmee muy njëriñ soo weddee muy lor te kenn mënu ci dara yal na yàlla guddal fan yi ñëpp mébét yi sëriñ bi ne yal ko yàlla xàggal nee na Assane na dafa wax ne am na lu la sëriñ bi waxoon soo ko xamaloon nit ñi dina la gërëm bëriwul yàqul waxtaan ti moom soxloon na koy xam mos nga koy wax mu dégg waaye xel mu gàtt tax na mu fàtt te foog na ne tey jii lu nit wax ci sëriñ Abdou Salaam dootul ko fàtte moom te wax jooju moom ñor na ko lool xamul ndax ñor na nit ñim soo ko waxu tey suba da ko ko leeralal mu ngi ñaan nag di ñaan boromam yàlla subhaanahu wa taala képp koo xam ne jóg nga dem gàmmo ji foo mën a ne na dem na ñibbi ci barke alaahi abdusalaam kon nag ñi ñëw ci hadaraam bi rawatina kenn bu fi jógee ñàkk amin kenn bu fi jógee wéradi amin ku wéradi ñëw fi yal na nga ak wér booy dellu ku ñàkk ñëw fi yal nga ànd ak koom te bul nag su ko defee nag ñun ñëpp nag nee na ñu ànd delloo suñu bopp jaamu suñu borom waxam yëpp jaamu yàlla ba ba su bi jaamu yàlla Basiiru Siise suñ jarbaat mu ne àllarba ci gannaaw tàkkusaan la ñëw mu ne ko ban saar nga tolloon mu ne ko saar sàngam mu ne ko Basiir commenceel Basiiru dal ba saaroo jeex noppi pour yërëm ko mu ne ko continuel mu demati ba saaroo jeex mu noppi mu ne ko continuel mu demati ba saaroo jeex lam mu jo wax fa subhaana lasi bi yadihi malakuutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un mu ne ko jasaaka allahu xayra nee na Basiru Siise mooy wax de nem nem ko firee firilu na moom alquran yoon yu bari waaye kerek kerek la doog a dégg fa subhaana lasi bi yadihi malakuutu ne kookale kenn warut koy xam xiis te ko leer ku téye Sëriñ Abdou Salam soo gën ne wasak doo ñeeti ndax da nga doy ne dina ràññale nag Abdoulaye Ousseyn ñetti gëlëm la fi indi bi mu yàgg góor gi ne benn Daaru ca déwén mu indi juróom bi mu yàgg mu ne benn daaru salaam ren fukk ak benn laag ak ñett nag mu ne leen man xaw ma ci soxla li ma bëgg xor ma jëm jàppoon ñu di ko mottali ba fekki ko ñu may ko ko moom lu rek la caamoon wasalaamualeykum wa rahmatullah ay tomb yu bari yal nañ ko mën a jëriñoo tey jii kenn mënta waxta waxoo ci yonent yàlla muhammad dana am benn aarif kabiir dafa bind mu ne lawlal waaqifu maa saxara sillu boo déggee ker am na jëmm fa ne alam bi kulluhum ker lañ ci jëmm rasulullahi yonent bi yàllaa ko bind mbindeef yëpp nekk ci lëndëm mu jël leer sotti ko rasulullahi mbindeef yi doog feeñ ki wax ci loolu nga wax xaqiqatil muhammad yi kooku muxiitatun xaqiqatul ahmad di moom waaqifatun fi mu taxaw la taxaw yonent bee ko xaasoo ba mu leneen xam mu sotti ko leer mi ndee fii génn loolu quraan junj na ko qul in kaana li rahmaani waladun fa ana awalul abidin mboolem aarifin kii junj awal boobu foofu nga sukkandiku yonent yàlla muhammad moo ko xaasoo awalul muhminin am na ci quran awalul muslimin am na ci quran waaye awalul abidin yonent bi moo ko xaasoo li Cheikh Mouhamadul Fadil jàngale sëriñ Basiir wax ko fi ci yërmande ci leer buñ ko bëgg a am dañuy tënku ci dara la ñuy tënku al iman billah quran moo ñu ko jàngal adduna bi kulluhum buñ bëgg a nekk ci dal nañ am nuurul iman nuurul islam noorul ihsan bu amee si ñoom mu set jaxasoowut ak benn lëndëm alam bi kulluhum nekk ci sécurité allasina amanu walam yalbisu bi sulmin ulaika lahumul wahum muhtadun loolu waxi yàlla la loolu la sëriñ doon junj ñu doon yonent foofu lañ doonee yonent ñu doon xutbu foofu lañ doonee xutbu wa tilka hujjatuna ataynaha ala qawmihi narfau darajatin inna rabbaka hakimun wa wahab naa lahu ishaq mu tudd ci fukki yonente ak wa yaqub kullan wa nuuxan hadaynaa min qab wa min suriyati daawud wa suleymaan wa ayub wa yusufa wa muusa wa haarun wa kasaalika najsil wa sakariya wa yahya wa isa wa ilyaasa kullun wa ismail wal yasaa wa yunusa wa luuta wa kullan wa min abaihim wa suriyatihim wa ixwanihim wajtabaynahum wa haddaynahum ila siratin yàlla nee na saalika hudallah yahdi bihi man yasaaw min xibaadi foofu la anbiyaaw yi xaari xaarifiin yi dañuy wax ne bañ tollee foofu yàlla dafa sóob yonent bi ci leer yonent bi fee ci ay junne at dara xamul coobaree yàlla daw pour dara xam wax naa leen yonent yi yonent yàlla fi mu xamee la mbindeef yépp xam waaye fañ nekkoon dañ nekk ci lëndëm ku ñàkk ñi ñàkk a xeex ci lëndëm gi anbiyaa uy la yàlla moo ne ko sa bëti leer yi tegal ma ko anbiyaa uy mu xool leen leer muur leen ñoom kenn mënta gis yàlla di wax ak ñoom mënuñ koo dégg ne ko xamal ñu leer gi ñu tegee mooy lan mu ne leer gi mooy miisaax bi nekk suma diggante ak yéen fekk gëmu leen ko duma leen def yonent yàlla wa is aqasa loolu moo leen ko def képp kenn mënta doon yonent yàlla te nga boo xorma ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lama ataynakum min kitabin wa hikma suma jaakum rasulun musaddiqun lima mahakum musaddiqun lima mahakum lu doy waar la xaarifin yi tagg nañ ci ba sonn muhammadu ba yi moom la wax ne innama masalu sifatika linaas kama masala nujumu alma yonent yàlla muhammad kenn lu xamul lim doon boo demee ci ahmadu waaqifatun fi mu taxaw la tax lim doon la dox kenn fekk ko ca waaye boo demee ci muhammadiya muhiitatun ahmadiya leen rek lañ ca xam damay wax ne kuy kilifa yarut doo xam seen wax qad sabaqa alhubbu min rabbin kooku ahmadiya la wa sabaqa al amdu min habdin li jaam bi santee kenn xamul ko qad sabaqa alhubbu min rabbin li safwati faaroo سبق الحمد من عبد لسين حميد قد سبق الحب من رب لصفوته جيفاره وسبق الحمد من عبد لسين حميد foofu ñaar rek moo fa nekk Abdullahi Habibullahi لقد كان عبد الله ولا عبد قبله لا عبد قبله قبله قبله ndax borom bi moo ne kullu abidin taabiun li xalqihi foofu la nekkee njëlbeenu ak jaam ba muy nekk jaam jaam xamut moom rek la yàlla bind biir boppam laqad kaana maxluqan li rabbin muwahidin waaye wa kullul baraaya mindeef yëpp daf leen bind ngir teddal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam damay wax waqad kaana maxluqan li rabbin muwahadin coy Cheikh Abdou Salam wa kullu barayahu li yasin abdihi kooku habibun نجي وصفي مكلم ومسر إلى الحق بجبريل أنسه boo xoolee foofu doy na karaama waaye nag li si sëñ Basiru waxoon doy na lenn rek laay wax xaarif fin yëpp bind nañ ne bés bi yonent bi judd moo gën ci bés nañ ne bës bi yonent bi juddu buntu safara yëpp tëj nañ ko bind nañ ne bés bi yonent yàlla Muhammad juddu buntu ajjana ubbi nañ ko loolu am na dégg-dégg bés boobu rek yàlla mbindeef yi bind yëpp mel nañ ñu ko neex loolu mooy déggin bi lii tax nit dem safara amul ci benn mbindeef ndax ki ñuy wax xaamir këram la baxee koo bàyyi doomam bu jigéen bu la mu dégg ne Abdou Moutalib am na sët mu daago temm temm ba tiim ko fab sët bi ko leer gàllu ko sawqu nekk ci moom mahabba góog mu am ci liir bi mu dellu ba muy jege këram lafañ bi jóg taxaw dox dajeeg moom wa xaamirun maata sawqan li siyaaratihi wa abnatuhu bari ad binnoori min saqami mukk dana dël ci yaat si moom mu teg tànk muy ati ci fatu wa amirun mata sawqan fi ziyaratihi wa amirun mata sawqan cuy seen fi ziyaratihi wabnatuhu bari'at li ñuy wax si sëriñ bi lu gàtt la ndem wëlli yi la ñuy xuut wëlli yàlla du mos a yàqule yàlla dana du jox nit xalal nga yàqule dana jox nit xam-xam nga yàqule dana jox nit nguur nga yàqule yépp Qur'an nettali na ko wëlli yi lan moo ko garanti allahu waliyu lasina yuxrijuhu mina sulumaat fekk yaa ngi takkoog benn cër ci lëndëm doole goo waliyu yàlla sa baay abdun taqiyun waliyullahi muntahijun nahja rasuli fanaala almajd fi ddiini allah inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum waaye lii dalul xel ni ko doon sëriñ di defee du nii lii dal na xel cheikh abdou salaam قدوتنا عبد السلام من صفا جسما وروحا فاجتباه المصطفى tant bi yëngatu leen ci Cheikh Abdou ma wax leen ci ñetti mbir dafa am lu ko yàlla jox loo xam ne kenn mësul ko ci fekk dafa am lu xew mooy quraanan arabiyan boobu moo jaxal nit ñi waram ndax yi fi la wax borom bayaan ci lay wax balaaqa ci lay wax maani ci lay wax badiha ci lay wax waaye man laaj ndax qur wal xaaf wal quraanil majid boobu lu ñuy jàng la wala qad ataynaka sab'an min al masani wal quraanal est-ce que dañ ko jàng li ni di xamal ne dañ ko jàng quraan moo ñu ko leeralal yàlla moo ne maqaamul mahbubiya qad ataynaka sab'an min al masani moom la yàlla jox yonent yàlla muhammad ku ko may masoo ko am ba malaaka yi taxawee jàkkarloog yàlla ba mu nama bind aadama ne inni jaaxilun fil ardi xalifa ñoom lu ñu wax qaalu atajalu fiha man yufsidu wa yasfiku wa nahnu bihamdika wa nuqaddisu wa qaala ma la taalamuun boo fa àggee sa kilifa rek yàqu nga bés bu la sa kilifa jéppee ba ne la xam naa loo xamut yàqu nga mu teg aadama ne leen ci leeri rasulullahi aadama gis ko mu ne leen xamal leen tur yi mawlaaya cheikh tijaani radiyallahu anhu baabul maharif nee na sabal masaani du lenn lu qudratun iradatun ilmun ayaat chamun basarun kalaamun si waajibaat juróom-ñaari mbir yii hiya almashariya lu yàlla mas a feeñal si nga feeñ loolu la huñil aadama tuuti mu nekk sirran yan kasfu min sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam لكسات العلوم من عالم القيب من هال آدم الأشماء آدم قمل الأسماء المسميات ثم عرضهم على الملائكة فقالوا بأسماء هؤلاء إن كنتم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم ال... yàlla ne ko aadama xamal leen ko aadama xamal leen ko ba mu jeex takk ci leeru rasulullahi yàlla nee na boobu maa ko jox yonent yàlla Muhammad te ku nit dootuma la ko jox wal quraan al ashim kook bu nekkee si xoli jaam am na loo sañatul cheikh abdou yonent yàlla muhammad ci si gàttal laylatul mihraj yàlla moo nettali ci quraan is yax sa sidrata amul lu ko yàlla woon kii wax na yonent bi am na lu mu fekkee wul xamoo ni xew ba muy rañaan ba àgg sidratul muntaha yàlla fa ko hu ñil mbooleem lim bind ne ko àdduna fii la yemee fii lay tasee lii mooy xiwali àdduna naxee mu daaray ni àdduna àllaaxira xiwal yaa ngi yàlla nee na li ma yëm ci yonent yàlla Muhammad maa saaqal basaru wa maa taqa maa saaqal basaru bi ruhyatiha fi mu teg bëtam bi la teg mu ngi dégg suma wax waaye xool benn xiwal loolu sëriñ bi daf ko ci doon yàlla ba mu ko waxee na jox naa la quran as mu ci tax abul habibi laa tamuddanna aynayka abul habibi wa sayfuddin qudwatuna habdu salaami musiilul jahli wa sulami mu ne ko laa tamuddayna aynayka laa tamuddanna aynayka illa ma mattaxnaa bihi aswaajan minhum aswaajan ay asnaaful mal fi dunya mbooleem xalal bu nekk ci biir àdduna sa bët bi bu mu ci tege wala taxsan alayhim ñàkk nekk jullit gi bu mu tax nga mer ñàkk am jaxasoog ñoom ci alal bu mu tax nga yëngatu waa damay laaj sëriñ bi nu mel ci loolu Cheikh Abdou alal moo ko fekki waaye xolam bi fekk alal loolu doon na ci rasulullahi wax fit janahaka lil mu'minin ku ko gën a wàcc doo ko gis damay wax ne loo rëy rëy maqaama tolloonu yonent yàlla Muhammad yàlla fa ne wàcceel ba tolloog jullit ñi maqaama yi ma la ràngal ni ma xamee sa dayoo man rek a ko xam muy xaq qadri man rek a ko xam wa miqdaari ku mooy haqiqatul muhammadiyya ku xam si nga xamee ku naan si nga naanee ku tekki dara si nga tekkee dara tam mën nañ koo jeexal wa waqifuuna la dayhi henda haddi ku ne am na tolluwaay kon yal nañu yàlla fayal sëriñ fa bima rahmatin min allah walaw kunta fassan xalisal xalbi min hawlika faafu wastaghfir lahum wa saawirhum fi l amri fa isa asamta mooy diisoog yow di la neexal ba mel ni fa am intérêt ci yow ngir wëlu yu rahmati bi mu doon yal nañu ko yàlla fayal ku lewet ku baax ku yaatu waaye noonu rek la mën a mel abul habibi wa sayfu diini qudutuna abdu salaami musiilul jaali wa sulami kooku sayxun saqiyun taqiyun alimun wariun mukarramuna abxariyul xawmi kullihim xel yëpp dal nañ Cheikh Mouhamadou Fadil li mu wax seede ko sëñ Basiir xel yi dal nañ bil almi wa rusdi naala kulla manfaatin njaboot gi na xel yi dal min almaarifi wal asraari wal hikami sëriñ bi léppam dañ ko war wa haasa ma haasa min faxrin wa marifatin خوف البرايا وسر سر سرهم yal nañu ko yàlla fayal kan yëpp dal wujudi wa jasbu tiini min asdin ila almuaymini wa huwa bari unnazmi moo ma wax ci làmmiñam ni ma bëgg loolu la yàlla di def loolu wér inna lillahi ibadan isha aradu aradallah ñi jàng bayaan xam nañ ne loolu mooy musaakala kon bu xool leen wansur bi aynayka hal raayta fi ardin misla alxalifati fi ilmin wa fi karami la wa kalla taalamu ma fi nafsi wa rabbul arsi qad qusisat sayqul masaayiqi haadil xalqi kullihim yal nañu ko yàlla fayal sëriñ yal nañu ko yàlla fayal taalibe yi ne seen xel dal yàqu leen dara sagal ngeen kër gi buñ ne jëmmu ker loolu ngeen doon ci alaaj Abdou Salam damay wax ne Cheikh ku ko am boko ko ñàkkee ya taalibal ilmi wal anwaari faidatan faral li taybata xabla saybi والهرم يا ملجأ كل سيام وسياسة صباي يا فوز من طلب الأخلاق والسيم li des yal na dënn yi leer xat yal na dëñ si xol buñ ko bëgg a may ndam dañuy mucc ci par parloo am na ñoo xam ne na nag loo bu amut ñoom foog nañ dañ leen di fàtte te yonent bi nee na kii parparloo bokkoo ci man kii def parparloo bokkoo ci man waxtasimu bi xablin moo gën safaan bi moo tax suñu lépp jox nañ ko sa baay yonent yàlla fawattu amriya fi sirrin wa fi alanin wa fi matalibi mahajat kullihim lépp ilayka ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya wa kulliyati ruuhi wa qalbi ma jismi wa alihi إليك يا سيدي إليك يا سيدي إليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي إليك يا سيدي سيغبت إليك يا سيدي إليك يا سيدي سيدي سيخ يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي الحمد لله رب العالمين dama wax ne taalibe yi xel dal na seen xel dal fii leer a fi nekk du laleeku ba laali suuf si dëkk bi xutbu kabir moo fi dëkk koo xam ne Cheikh Omar Ndaw ni mu toll ci yàlla tollu ko ci ragal yàlla xool ko ne ko bu ma lay digal lan la lay digal te jamonoom moo tiim ñëpp boobu le wëlli yi moom ngeen àndal xeesul kenn nañ takkaayoo si ay jikkoom bëgg njabootam gi yonent bi nag daf ñu jàngal dara nee na Aboubacar gëneewut leen rakka yu bëri gëneewut leen xoor du génnee asaka du haj màkka dafa am ab mbir bu tegee ca xolam bi loolu leen gënee xaarifiin yi firi nañ ko nee na hubbu saati lillah hubbu rasulillahi lillahi hubbul muhminin li rasulillahi jullit ñi dag leen di xoolee ngir yonent yàlla muhammad yàlla nañu yàlla fayal sëriñ fàggul nañu tiraanga ak àdduna tiraanga ak àllaaxira ndax dëggal na dëggug rasulillahi gi te dëggug rasulillahi ku ko dëggal loo bëgg yàlla defal la ko wala si jaa wa sadaqa ulaika humul lahum ma yasauna salika jasaul muhsinin dul amur kieka ñii weddi na dañ gis rasulullahi waa ku dëggal yonent bi ba yàlla ne waliyu nga nga ne yonent bi laa bëgg a gis yonent bi feeñu la kii wax ne doo ko gis waxe yàlla la weddi lahum ma yasauna inda rabbihim salika jasaul muhsinin maqaamaam ihsaan kenn mënu ko wone li nga xool ba ne rafet na li lay jox rafet bi du ihsaan waaye nag si xol yi jaam lay nekk yal na ko yàlla def si ñun yal na ko yàlla def si ñun yàlla fayal ñu kilifa gi yàggal ñu nag seen mag ñi yal ngeen fi yàgg xam wér xam jàmm seen wasak yokk seen man-man yokk ñun nag nuñ mel rek baax na يا سيدي سيقي وكل يدي روحي وقلبي مه جسمي وحاليمي سباي قد نال في رتب ما فوق رتب من المراتب والعلوم وهبهم يونت يالله محمد فوجودك يا واجب منفريدا باد فنى الغلغيا وارز يتاوى فوجودك يا واجب منفريدا جودك القول شيئا يمازله يا ملك الملك يا وارث يطاه قلبت عبدك يا رمان يا زندي في مسار اللوزبية وارث يطاوى كنيرو أرسلته وارثا كل أيبتي أمزق لائق يا وارث يطاوى كنيرو وعدني ربي من أبا بقدوتنا للفتوات يا وارث يتام صل وسلم عليه سرمدا أبدا ولا لواسبيا وارث منافي دين يا وارث يلا واتني كل ما تكون تريد على الولايات يا وارث يا ثواب ومات أزيا أموتنا موادع يا سايب الأرض يا رسيد يا لو عصمت رسلك يا رنسي رزد يا خالق الرسل يا رسيد يا ثواب أنت جندك أملاكا تطير من القطيئات رزيد يدا أتيت رسولك إرسادا لقومهم سيل جابات رزيد يدا ودات رسدك بالمخارز فوتين في عالم الرؤيا ختمت ربي بالمحبوب قدوتي يا عالم الجسم يا رسيب يدا رزاد من البريات يا رزيد يدا أرصدك لك يا رمان متميدا لا تايك يا رزيد يدا مرشدا يا ربي متنيا يبصر ودك يا رشيد يدا صل وسلم عليه سرمدنا أبدا ورال واسبي يا رشيد يدا وأغنني راسدا بلا مقتديا يا فزدينك يا رشيد يدا أرسل بني وأصحابي وفيهم ولدينك يا رشيد يدا سبت بني وأبا بزمر زاد بكلمة الأخي يا رشيد يدا تواخر العبد أو تفو بلا نقام لوفي المكايا سبور يدا بلا مجديا صبر يلا مرت رسلك بصبر بلا جل على عقوباتيا صبر يلا صبرا ربي بلا خوار بنور وصدقايا صبر يلا جعلت مدايا رمان صبوتنا الحكاية صبور يطلع رتبة لا قرم يبلغها من الخلائق صبور يطلع وقدرت قاتما ابنة والرضا صراطك الله قايا سرمدنا أبادا ولا لواسبيا صبور يضا سابرا لزاد ملتقيا يا شكر لله يا صبور يضا وافني سالما لدين موتبيا يسبل ربيا صبور يضا بالشمس والنجوم يا سنادم أكمل لنا دين يا صبور يا لا أدعوك في شمس ونجوم يا زقاتي أكمل لنا الرشد يا صبور يا الله بالشمس والنجوم يا أمالي أكمل لنا الحلم يا صبور يا الله أدعوك بسمس ونجوم مرتجل أكمل لنا نور يا صبور يا أدعوك بالشمس والنجوم منفردا أكمل لنا الكسب يا صبور يا الله أدعوك بسمس ونجوم مرتديرا أكمل لنا الفتى يا صبور يا الله كوكب الشمس والنجوم مفتقيرا أكملنا السر يا صبور يا الله ولوك في شمس ونجوم مفتقيا أكملنا القرب يا صبور يا الله ولوك بالشمس والنجوم ساكرا من أكملنا الفوز يا صبور يا الله أدعوك بسم سوى نجوم مجتهدا أكمل لنا البرايا صبور يا الله أدعوك بالشمس والنجوم تاليات أكمل لنا البرايا صبور يا الله أدعوك بسم سوى نجوم زارقات أكمل لنا الرزق يا صبور يا الله أدعوك بالشمس النجوم سابقات أكمل لنا الحمر يا صبور يا الله واتنا ربي تكميلا وتزوياتا من زماك يا صبور يا الله واتنا ربي تحقيقا لقربتنا من نور أسماك يا صبور يا الله عرفانا وتنقيات نسر يا زماك يا صبور يا الله فاتنا ربي تهيرا لأنفسنا من قرص أسماك يا صبور يا الله واتنا ربي سل أرسي يا بطانا من جاي أسماك يا صبور يا الله فاتنا ربي قرانا لوالدي من تور أسماك يا صبور يا الله واتنا ربيتا ليسا لزوجتي من عاق أسماك يا صبور يا الله واتنا ربيتا داء لزادتنا من ين أسماك يا صبور يا الله واتنا ربيتا فيقا لولدتنا في عزمناك يا صبور يا الله واتنا ربيعنا اللي بلدتنا من كنت أسماك يا صبور يا الله واتنا ربيع سعدا لزمرتنا من أدري أسماك يا صبور يا الله واتنا ربيعنا اللي زمرتنا من جود أسماك يا صبور يا الله واتنا ربك فلما زبوتنا من فيد أسماك يا صبور يا الله واتنا ربك هات لقدوتنا من تلق أسماك يا صبور يا الله واتنا ربي سيد طور بها مدينه الحسن أسماك يا صبور يا الله واخدا ربيكم هذا لكم أرضي بالمجرى سماك يا صبور يا الله واتنا ربي خيرا لأمتي من بري أسماك يا صبور يا الله مسكني من جاي أزماك يا صبور يا الله واتنا ربيتا ميلا لمقصدينا من سب أزماك يا صبور يا الله وكنت وليا بالفعل معلما وآدم بين الماء وليا بالفعل معلما وآدم بين الماء والدين أحمد نخنا حبيبي ومالي لمام مسود خليفة عدنا فقي وأحمد ميت لعقاب فول بوازلين أوائل الرنوى أواخر رمضان بواسل أوائل الرنوى أواخر أحمد وكل ولي تحت مزيغنا الخيل أين القوم قلت أمدا لي أنت فإن قيل أين القوم قلت أحمد وسعادات أخواس بنالك ظنان مراتب ما في لوائك مدى مراتب وصافي لوائك أحمد مقامات أزياق فروز لنا صاحب عرفان هواتل ومدى فقار عظيم الله إنور فقار عظيم الله إنور فقار عظيم الله إنور فقار عظيم الله إنور فقار عظيم الله من هو مكتوم خلائق مدى مقسم الله يمازن فقرة لمن هو المكتوم خلائق أحمد نقنا سراب وسيم لي كنت مجاج حبيبي تا والله أحمد سراب وسيم لي هموم أكابر مجاج حبيب تا والله أحمد انجر وكنت وليا بال وعدم بين الماء والدين مدى كنت وليا بالفعل المعلمة وعدم بين الماء والتين أحمد ينجر وأحمد شمس كن كي سجن جلو أقطاب أماجد أحمد أحمد شمس سيخ كواكب سجن جلو أقطاب أماجد أحمد ينجر سبعة رجال في jooro sabata rijaala fii konte wa bayanta sakala bi anati amada sabata rijaala fii madamir sunnatin wa bayanta sakala bi anati ahmada nakunda sabata jaliyan fii كي وتختم برسقا مراتب مدى تجلي في مقام خلافة وتختم برسقا مراتب أحمد أي سلام والنسبة قلب فيه آية فردنا إجورو والنسبة قن من فيه فردنا إجورو والنسبة قن من فيه ayati fardina kon kay ka nisbati taafin nubuwati amada wa nisbatu xadmin fi wilayati fardina ka nisbati taafin nubuwati amada dawkunda wa salika ixbarun kon kay isin xad mum sunun من الجد أعمدا ذلك إخبار بقاته حجة إذ قدم المأسور من الجد أحمد بنجور معلبقا من من بنجور معلبقا من من بنجور معلبقا من من جور محلى بخل من من جور محلى بخل من من سبعي محلى بخل من من خليفة محلى بخل من من جور محلى بخل من من باي سلام محلى بخل من من رب كي من العارفينكم مل القريا مدى شريف من العارفينكم مل القريا مدى شيخ تيجان وكيف تتاول أبو سوامخ كن كي وبور البور من القوس ومدى كيف تتاول داب سوامقا وبربور قوبنا القوس أمر شيخ تجار وأوراد سيقنا متينة شيخ تجار وأوراد سيقنا متينة شيخ تجار وأوراد سيقنا من كيف كل المريدين وسيلة مدى وقنا هبال متينة فقل للمريدين الوسيلة أحمد اجرو أمني بهبي باي سلام أمني بهبي باي سلام أمني بهبي باي سلام أمني بهبي géy jooro aminni bi hubbi bay salaam aminni bi hubbi géy jooro aminni bi hubbi faarooxo aminni bi hubbi kon kay wahab li muraadi fi bi sayxi yaa ملك برية وهب لي مرادي فيه سيقي أحمد فارو مدائي كان من جاه فارو مدائي قد من جاه كن كي لنور وفد ومعرفة مدى قد من جاه سبات لصادق بنور وفتح ومعارف أحمد بنجور صلاة وتسليم كنكي مرتيب أورادي حبيبي أحمد وتسليم على أذن خلقه صلاة وتسليم على أسر خلقه صلاة وتسليم على أسر خلقه على أسر خلقه على أسر خلقه على أسر خلقه أوراني حبيبي يا أمك جنور وآل وأصحاب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 allahu akbar laa ilaha illa allahu wallahu akbar bismillahi rahmani rahim qul a'uuzu birabbil falaq min sharri ma qalaq wa min sharri qaasiqin iza waqab wa min sharri naffaasaati fil 'uqad wa min sharri haasidin iza hasad allahu akbar laa ilaha illa allahu wallahu akbar bismillahi rahmani rahim qul a'uuzu birabbin naasi malikin naasi ilaahin naasi min sharril waswaasil qannaasi يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا الحسيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الزاهدين وبه مؤمنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد السمع والبصر وكلمات ربنا التامات المباركات ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القالق البارئ مسبر القفار القحار الوهاب الساق فتاه الهليم قابل الباسط قابل الرافع مهيس مسل سميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير عليم الحسيم غفور شكور علي الكبير حفيظ المقيت الحسيب الجليل كريم رقيب مجيب الواسع الحكيم ودود مجيد باعث سيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد محسين مبدئ محيد مهيل مميت حي القيوم واجل الماجل واحد الصمد القادر المقتدر المقادر الاول الاخر الساهر الباطن والي متعالي بر تواب منتقم حفور مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع القدني المغني مانع اقدار النافع نور الهادي بديع الباقي وارث رشيد صبور والله لا اله الا هو فضله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل من عقدنا القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوته من سهو نسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على غير ما أنزلته أو ريب أو سك أو تجل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو سيق لسان أو وقوف بغير وقف أو انتقام بغير مرقم أو إشعار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همسة أو جسد أو إهراب بغير مكان فاكتب وهو منها على التمام والكمال والمحسب من كل الإلهام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه معدليا حقه ما لدى والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبسالة والأمان أقطب لنا بالسر والسقاوة والدلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا حال نوم القبلة والكسلان وأمنا من حساب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أجل ديدان وبيت وجوهنا يوم البرس وأهتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسير سلابنا وسقي ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا في وسط الجنان ارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأقربنا بلقائك يا ديار استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والصبور والفرقان أهدنا جميع ما سألناك به في السر والإحسان وسدنا من بر... ne siyaare dugub bi ñu doon defal sëriñ Abdou Salaam jàpp ko ñu mu nag waaye bu taalibe nekk boo ko déggee sa ziyaare la ñëwal sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nee li sëriñ bi doon mujjee mooy fii ñu toll nag dugub ji ñor na nee lu néew lu mu gerte gi mu ngi waaj a kon bu ñu fàtte xaq yàlla yi ci war sëriñ bi daan na ko dénkaane lool gannaaw yàlla dogal nañu toog fi nag tey di ko wax kenn ku nekk la nga xam mu mat nisaab nga génnee xaq yàlla ja jox ko say mbokk ndax ñu bokk ci njaboot gi nga xam ne moom la sëñ bi wax ne dañuy wax door yenn ñu si yàlla boole nee na kon gàmm gi jeex na yal na yàlla gërëm ko ñu fekkee déwén ñu fekkee yeneen fekkee yeneen xat mu ñëw na gën a neex na gën a barke te nga dajee ci ngërëm nag ngërëmal sëriñ Abdou Salaam ngërëmal a ngërëmal Seexu Tijaan ngërëmal yeneen yal na ko mën a def ci na bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatihi lima ughliq والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين